allo waaw <laughs> Mimi Touré <laughs> waa kay Touré jàmm rek kay alhamdulilah waa yow sama invitation bi wuyoo goo ma ci ba tey de <laughs> ah waaw ndogu li mi ngi fi amul ku koy lekk maa la invité ñëwal ci ndogu li ah te yow sax dama laa gëj a gis nag na nañoo toog waxtaan. billaay waaw comprendre naa comprendre naa ndeysaan billaay. waaye na nga ñëw nag bi yoon nag bul ma ndax soo ni ma da ngay ñëw ndogu si na nga ñëw ndogu si ah yaay sama xarit waaye xam man bu ma la gisul sama xol bi du neex <laughs> li sama xarit <laughs> waa kay <laughs> waa dinaa la xaar waa baax na waa incha allah waa kay oui j'arrive heure ndogu nit ñi di fëgg comme ça je ne comprends rien maa ngi ñëw waaw euh, si entrée Mariam waaw maître Wade ci loo nekk namu naa la maa la raw. mais baa <laughs> eh, ngi wéree. yàlla kay. baa dama naa raw billaay la kay wàdd njaboot gi ñu ci jàmm waa ñëpp a ngi ci jàmm jàmm rek kay waa kay rek ana sa ngóor la di nelaw xam nga moom bu wóoree koor ragal koor kay jàmm rek kay naka yaram bi maa sonno kii dama dem ci boppu koñ bi waaw am benn xale moo teetal li ma soriwul fii. wax nga dëgg. te jàmm rek kay jàmm rek kay. rek kay ñu ngi fi. jàmm rek. na ngeen def na ngi fi rek. yéen jàmm rek kay wàdd. Mm-hmm. alhamdulilah macha allah jàmm rek toogal nii. macha allah <laughs> de moom dafa voyagé woon. ah waaw mais xam naa fii julli gi rek dina ñibbisi. Mm. incha allah waaw. jàmm rek kay. c'est bien. ak ah, kay wàdd. Viviane mu ngi hmm? Paris la laa ah, waay ah mi ngi Paris. Paris laa waay wax nga dëgg ani si njëli. mu ngi gëj nañ koo gis de. depuis loolu depuis élection yi lañ wax nga dëgg Karim moom yaa ngi koy dégg. waaw ah, Karim maa fi fii. ndeysaan dëgg la mu ngi fi jàmm dëgg la jàmm rek kay waat. indilaay naka njaboot jàmm rek kay. indilaay indilaay jàmm rek kay. indilaay tabarkaay hmm. <laughs> hmm. na ngeen dem nag. ñoo ngi fi rek. jàmm rek. kii. damaa xaw a doxee nag lu sori. waaw bëggoon ndox rek ma naan. ndox ndox waaw. xanaa wóoroo. non non wóoruma damaa amee ndigg depuis avant ah def na trois trois trois mois yoo xam ne. ndigg maa ngi ko tëdd Paris. Ah, ndigg luy ruux jotewul ak dara ndigg luy ruux yax yi tànk mag nga. mag nga mag nga. waaw nga fi sax eau <laughs> na ñoo ngi fi rek wàdd jàmm rek. ndox bi moom ban ndox la. bii mooy Aquaterra. Eh, dafa légère. booy naan doo yëg teer <laughs> c'est bien. Mhm. ana Macky moom de mi ngi doon nelaw ci biir. Eh, wóor ma ko parce que daa am war dem. maa Ousmane Faye ñoo raanu si kanam. Ah, ma woo ma daam la koy. waaw xaaral diis ko benn soxla rek. waaw te <laughs> rek yaa maa ngi di rek. <laughs> yàlla de mën na lu ma ko fi woon kay. <laughs> suñu kay wadd mi ngi ñëw yee naa ko fay <laughs> fay ngi ñëw. da da doon nelaw xam nga bu wooree yaa mu gën a xam <laughs> jàmm rek kay kay wadd. fay jàmm rek jàmm rek. ndar. Hmm? ma ne gëj ndar. ndar ndar waaw xam naa fa tuuti nag. xam nga <laughs> dem na ngelaw li dafa fan yi dafa ngelaw foofu. Eh, wadd wadd.

sant warda warda naka taw feexi Sall ñu ngi sant yàlla nga maa woo gëj nga maa fa waaw nekkoon ci ay mbiro nekkoon ci ay organisation ak yooyu xam mooy fi ñu nekk gis nga fi ñu nekk nii <laughs> mais a parlant de ça oh lii yaa ko moom wala lii maa ko joxoon Sidi waaw waaw waaw fii maa ko joxoon Sidi man maa yi fi nekk nii yëpp ko ko montre bi lii bu yëg yëpp maa ko doon. dëgg la dëgg la taabal bi lépp mais kañ looy maa woo Cheikh Niass xam nga réew mi ni mu jaxasoo nii. Mhm. moo tax ma woo Cheikh Niass ne ko foog nga alma sa kër papa bi comme sa papa jàmm la doon woote. fulla la doon woote fayda ah, booloo. waaw man de naa fi wor si dalal fi askan wi ñu mm, nekk ci jàmm daal. moo tax ma jël kër gi waaw moo tax Cheikh nga dëgg waaw nga dëgg. naka yi tey ça soxla woon. waaye ca moo tax daal ma ne lu ma def. mu ñëw seet si la sama doom seet suma xarit. dëgg la dëgg la suma papa nga. ma bëggoon. Hmm. soxna si du ñu may wala. déedéet kii mën na toog kii état la ci la bokk. état la état la kii presque moom xam nga léegi palais dafa changé. Hmm. kii ah, presque maa jiite rek mais mooy décédé. <laughs> mooy décidé dama defal kon am ma lu ma koy nëbbu. waaw loolu moo tax bu daganoon sax dañ naan derrière grand dame y a grand homme. non non bu mais xam nga bëgg moo topp ci ginnaaw du culture Sénégal waaye bâtiment maa nu moom noonu la quoi. <laughs> derrière chaque grand homme il y a grand dame. d' accord amul problème. <laughs> mais dama wax yow derrière chaque grand dame il a grand homme. waaw waaw foofu li mu. non nit loo ko bëgg bëgg. ah garaawul garaawul. loolu ku baax la kuy jàppale social bi. dëgg la waraloon ta jotaay bi. waaw xam nga boo fàttalikoo jamono yii di paase. waaw. Euh, da ñëwoon nañu masaalikul jinaan mhm. man yow ak sëñ Muntaxa. Mhm. sëñ Muntaxa jubóo lañu. yàlla na fi yàgg te wér. amiin Mbàkke Balla so. fi yàgg te wér ma def la am solo la. Mhm. Euh, ñu waxtaan nga déema. ni ma di nga am loo ma jox. <laughs> waaw mais jour sax may fàllu. nga dëgg. décidé de monter dans voiture pour ñu dem sa kër. wax nga dëgg. bi ñu demee man la jox ma nga ne ma da nga fàtte sa portefeuille ci jumaa. ah waaw <laughs> je me rappelle. wax nga ah, dëgg fàtte wu ko moo tax ñu naan demal naa. fàtte woon naa ko sax fàtte woon naa ko. moo tax ñu naan demal naa. xam nga ñu ñu wax. waaw wax nga dëgg. eh bien nga ne ma da nga fay ñëw ma ñëw fa ànd ak ñeenti nit nga ne ma da am ñi nga àndal doo joxe ci mbooloo. ah waaw waaw <laughs> rab loolu fàtte woon naa ko. wala ko fàtte ma ko parce que da nga ca xaalis dëgg ma ko moo tax ñuy ah. Ah. moo tax ànduma kenn je suis seul. ñëw pour jox ma li ma waxoon ma dem. ci jaam nga dëgg yow xam nga sunu papa man nag jàppoon naa ni fàtte nga koog yooyu mais comme fàtte woo ko du tas sa yaakaar ndax jubóo gi ñu woon li ko waral moo ñu nekk ci jàmm réew mu nekk salaam te kër si nii su ma ko jëlee jàmm tax ak salaam léegi kon ni ñu def mooy amul problème dinañ ko gérer léegi demal incha allah dinaa fa yebal fan yu néew ñu am lu la indil dégg loolu moom jarul sax ngay déplacé dinañ la ko jox yow dama yaakaar ne déggoo ci président je suis ancien président la yow nga nekk président bu bees. mais dama yorul baal bu ma fayee ku ma jox la. ku nekk xam na état ni muy doxee. nu muy doxee caisse noire bi nekk sa rondal. comp ci nga jox ma ko eh, ma dem caisse noire ku la eh, caisse noire ku ne am na ko. loolu jarul nga gis kii caisse noire bi. ma dem ma dem ma dem. ah du man de. ku seen du man de. caisse yoo xam ne moo taxoon ma indiwaale fi ma koy def. fii laa koy fii laa ko bëgg a def. léegi mbuus bi da nga ko programme pour ñu def ci sa xaalis. pour loo ma neex dem. lu ma la may dama ni pour lu ma la may. waaw léegi nag dama la bëgg a xamal benn affaire yëf yi du force. parce que dañu jubawoon su ma bàyyi nga mais nañu waxtaan dañu jubawoon waxtaan ci loom solo pour bokk doy bokk bàyyi ma ne dinaa la neexal pour yërëm la mais comme yenn temps yi maa ngi gis sa doom mi ngi yónnee fi ay huit huit kon amaan ngeen kon aw ma leneen loo xam ne war naa leen ko mën a jàppale. maa ngi maa ngi da ngay noppi nag yow xamoo buur dee na yow buur saay na nga xam. xam nga woo naa ci ñëw naa ci fair play mais dafa mel ni dégguloo ma. loolu. yow ñun nous sommes deux deux détenus ñu ñaar ñëpp ay détenus. samay huit milliards yi ma la joxoon. nga wër ci àdduna bi yëpp dama la ko may. image yaa ngi fi. vidéo yaa fi. te mayuma la ko loolu léegi laa ma koy dama koy jox delloo ma sa eh, loolu dama la ko doon sagal la rek dama la doon sagal waaye xam nga ni léegi bëggatuma sagal ma jox ma sama huit milliards maa ko moom waa la delloo ma ah. sama huit <laughs> <laughs> na loo xam ne rafet joxuma la joxuma ko joxuma la ah, sama avocat dina jox je vais porter plainte. déet déet. non non non je vais porter plainte. sama 8 milliards dina ma fekk foofu loolu avocat dina ko réglé. joxu leen ma ngeen wax met waat bul seen kanam yu rëy yi joxu leen ma ngeen wax yéen ku tos yéen lu bon ngeen xam. fi saaga kenn xam nga li nga nekk ma tàmm nga di saaga waate tàmm nga ma chaque jour ma bañ fii kenn nekk fi presse nekk fi boo ma saaga dama la koy delloo de. loolu leer la la wax fi mbuus bi dinañ la si defaral bàyyi fi mbuus bi. bàyyi fi mbuus na yóbbu mbuusam na yóbbu mu indi benn problème marem dal dëkk sama dëkk non non non non non bu ma li moo tax ñu jote na yóbbu mbuusam kii maa ko yar maa ko dugal ci politique bu bëggee politique man la sama mbuus ma fi bàyyi jox ma defuma ci dara ma ko fi bàyyi ma ko jëlee yow nit ñi waaw na yóbbu mbuusam je vais porte plainte waaw xaaral ma la kon xam xay ku kersa yow yaa ñàkk kersa waaye li la naqari man taguma la ko man loola naqari dagguma la ko demal demal bul wax ak man demal. ren naa la ko xamal riba saako de saako bu mu ree sa kanamu riba bi nga ak sa soxna. mais ma gunge la ndox bi. mais waa Marème baal dëgg ki li ma la man dama liggéey ba nekk ma am du ñëw sa may ma sama jamono. ñu xoloo ma maa fal suma bopp def suma campagne. bu dee Karim nga bëgg mu ñëw ta am place sa xol di xasan dina fi jeex lu jantuwuma leen man faalawuma la teetuma la da ngeen defe ne dama yambar sadik laa fir rek bàcc kii dem na jeexul léegi dama leen lu jante man doo cent franc waaw yow eh, waaye chéri da ngaa woor de yàq na sama koor gi waaye yaa sa koor gi sa wax ju bari ji naan nga ndox bi di yàq waay ki yàq na suma kor waay dangaa woo dem di naan ndox bi xama guucu la tudd xama buucu buucu naa loolu kay xanaa après ma woo oustaz ba ma yàggale ko après ma woo eh, oustaz xay après ma woo oustaz yàq nañ ci kooru